Moubarak tey la le vendredi tombeek le 5 mai 2023 ñu ngi fii tey arène nationale 10 heures 11 heures moom moom moom moo jot bu ngeen fi gisee nag ñu toog ak ki nga xam ne le grand coach suñu tonton suñu lépp muy tonton Kadi Diop ngeen xam ne am na lu fi xew li fi xew mooy équipe régionale bu Dakar mooy mooy pare drapeau chef chef d'état bi war am di di 12 au 14 fi nga xam ne moom moom mooy Ndar. Saint-Louis ñoom nag comme ni ñu ko defee woon daaw fii la ñu di def seen i seen i camp di di fi entraîné xale yi fii la nekkoon léegi ñoom ëbbali ñoom selemele ñoom xale yëpp nekkoon fi waaye moom ñu fekk ko fi moom comme ni ni mu ko defee rek mu mu mu doon superviser xale yi tontookat yi mën nañu kañ ngeen ko démarré seen seen seen euh, regroupement sax déjà. depuis barke démb ah, la ñuy démarré depuis barke la ñuy démarré regroupement yi xaw nañu am retard nag quand même ah. waaw mais ni ñu ko commencé si jàmm daal incha allah. yàlla def na ngeen defoon ko daaw yàlla may leen ndam mooy sa première kii daaw yàlla may leen ndam ren ngeen ñëwaat est-ce que défi bi defi bi xaw la baar bi xaw la kii trop wala. waaw ah, li <laughs> ñu sant yàlla bi ñu ñëwee rek ah, yàlla yombaloon ñu ko wax dëgg yàlla ñu dem jël lépp ah, wax dëgg yàlla bu ko joxaatee rek dañuy jël. waaw loolu léegi li ñu bëgg nag rester si trône bi nag comme ñoo jëloon. waaw li ñu bëgg nag mooy des fa. waaw jël jëlaat. <laughs> ndax yomb na tonton. ah waaw du yomb nag parce que fi mu nekk ñun ñëpp léegi nag ñun la ñuy xaar. waaw comme ñi ñoo jëloon. léegi nag ñun la ñuy xaar. l'équipe à battre. voilà voilà donc ñun la ñuy xaar comme ñun la ñuy xaar nag dafay dinay xaw a difficile. waaw ñun ñëpp dañ bàyyi xel. ñëpp ñu bàyyi xel voilà. mais dafa mel ni équipe bi ñoom Sélémélé ñoom Obali ñoom Sini Sembène c'est pas mal ko comme équipe de ton. non am nañu très une très bonne équipe am nañu une très bonne équipe wax dëgg yàlla. waaw wax dëgg yàlla bu bu normalement bu ñu góorgóorloo tuuti normalement yëf yi mun na mun a desaat suñu loxo quoi. Hmm. xool euh, euh, comparé tuuti équipe bu daaw ak ren ndax noo noo noonu la gisee ñaari équipe bi waaw ñaari équipe bi si ni ma ko mën a gisee parce que bële xam nga luur bi mu doon Serigne Ndiaye dafa doon assuré. waaw luur bi dafa doon assuré. donc mu desoon petite catégorie ñoo doon xaw a ñoo doon ñoo doon ñoo doon flotté mais dafa fii fii côté petite catégorie wax dëgg yàlla mm-hmm. euh, bii pa bii pa am na si yaasaan bu wér quoi mm-hmm. waaw waaw léegi nag bu ñu ko boolee ax Ibou Ndiaye mu ñëw jël place su. Euh, euh, Serigne Ndiaye wax dëgg yàlla li si am nañ si yaakaar bu baax. liggéey bi fii nu muy demee tonton ñaata séance ngi def par jour. ñaari séance la ñuy def euh, par jour donc bu ñu xëyee le matin comme heure bi nii rek 10 heures la commencé daal def travail physique bi le soir tamit ñu tàngalu daal di daal di def def def contact bi waaw waaw. Ah. d'accord donc deux séances par jour yow ak ak entraîneur physique bi yéen yéen fi nekk def naa. waaw yow le matin man physique dañoo xam naa ah, biig dañoo guddee. waaw mu nga wax préparation foog nga dem si euh, ni ñu koy pour waa Ndakaaru kilifa yi jàpp seex yooyu. donc mu ñu paree entraînement dañuy di wër yooyu donc dañuy guddee donc xam naa moo tax egseegul sinon heure bi daal doon na fekk parce que mu ngi doon ñu ànd dem julli ji jumaa voilà. ngeen war a quitter Dakar kañ pour dem fële nga xam ne moom mooy euh, Ndar. normalement entre jeudi lañ normalement jeudi la ñu bi fa la war a la ñu war a kii pour jeudi waaw jeudi jeudi fekk ñu fa quoi waaw. waaw mercredi ngeen fi jóge daal. daanaka waaw mercredi mu ne xaalis guddi guddi nañ départ. incha allah incha allah d' accord bu ñu ñëwaatee tuuti euh, boobu nga wax moom moo remplacé ki ki nga xam ne moom mooy mooy ah. waaw Boy Kaïré mooy mooy mooy mooy directeur technique bi voilà donc euh, Moustapha tamit Moustapha tamit toujours mu ngi bi mooy mais mu nekk si kaw di superviser bu fa jógee tonton mënuñu il foo ñu am am lu fi xewoon bu yàgg voilà est-ce que loolu tamit nekk bi nga nekk fii tey euh, am ay combat yu am solo le 21. Forza ak ak ak ak ak ak Forza ak ak Serigne Ndiaye ndax loolu noo noo koy kiwee loolu da ngay liggéey ak à distance ak ñoom wala. waaw waaw ko fekk na comme ñu ngi doon commencé di li di liggéey. donc euh, benn semaine mooy def suñu diggante rek bu ñëwaatee rek dans la semaine yi continuer daal euh, terminer préparation bi ak ñoom ko incha allah d'accord kon daal foofu du du du am problème yéen a ngi déggante yéen a ngi. ñu ngi déggante ñu ngi déggante ah, ñu ngi ngi déggante ba démb rek ñu ngi déggante quoi. Hmm. Lac Rose ak euh, Quench barki démb la woon dimanche boobu combat noo gisee defetu Lac Rose bi noo koy analyser tonton. bon man nag de kii bi fekkuma fi bon gis nga ñëw moon si ba gisuloo ma si terrain bi. bon combat bi fekkuma fi mais problème bi mooy Lac moom dafa def une très mauvaise préparation rek. voilà donc euh, mauvaise préparation moo gën si li parce que xam nga ni boo ko xoolee xam ne dafa dafa vidéo waaw dafa vidéo boo ko ko gis ñëpp ku gis combat bi rek xam ne donc euh, euh, teguloon préparation bi si yoon daal. loolu moo koy indi loolu. waaw tegu maanaam bi liggéey bi daal parce que même écurie ba yàgg nañ fa ñëw mais li fa doon fekk lakkalo est-ce que foofu la waajalee combat bi tonton. Ah, waaw waaw problème bi foofu la yoo xam <laughs> ah, la mooy ñëwul entraîné bañ a di wax mais le mot c'est ça mooy ñëwul entraîné si xale bu ndaw toog xale bu ndaw la ay xale ma ngi ay morom toog 5 ans bëri woo waroon na liggéey liggéey quand même mais lan moo xew ba Lac Rose waroon liggéey liggéey ko. moo xam nga xale yi léegi ñu ngi seen esprit bopp la ñuy yore ak seen i xalaatu bopp ak seen i bopp. waaw te nag nit ki nag doo ko mën a forcer si yéen yi daal waaw <laughs> nit ki da nga doo ko ko gën a bëgg waaw moom moo war a gën a bëgg yëf yi ne xale xale la il a l'avenir devant lui di war a lekk ay millions ah ñëw jàppale ay njabootam kon nag war vraiment moom moo war a am motivation boo xam ne bi vraiment boo xam ne bi kenn benn moroom du ko am voilà surtout mu ngi jóge si defet parce que nit ki boo jóge si defet normalement da nga war a nekkaat beneen nit waaw da nga war a nekkaat beneen nit dafa am leen lu war a sax si yow loo xam ne li jom goo xam ne gi vraiment da ngay liggéey liggéey boo xam ne impeccable quoi waaw. avenir u Lac Rose quand même xale bu noo gisee si làmb pour mu ñëwaat lan la war a def tonton pour ñu ñëwaat. ah bu <laughs> ñëwaat mooy na entraîné liggéey rek <laughs> nañu ñëw na séedee na séedee daal di liggéey rek boo ko bëggee nit da liggéey da teg lépp si yoon mais vraiment koo xam ne que nag vraiment doo ko gis ah, doo du fa ñëw alors lan nga fi mën si doo xam fu <laughs> yow mi daan doo xam sur quel pied danger ah, da ngay mujj a toog jàpp sa ñàmm tamit waaw. ndax defetu Lac Rose boobu am na lu mu mën a influer si combat yi di ñëw muy tam ay combat yu am solo si écurie Fass Ndakaaru. non non absolument absolument normalement da leen da leen war a da leen war a motiver que seen collègue jéegu duggoon na si komba am si défaite donc moom dañu war a mën a góor motiver mu ñoom ñu gën a gën a góorgóorlu pour mën a fat fat fat fat lool pour ñu fàtte defeet googu voilà. d' accord kon daal euh, ambiance bi au niveau de Fass amul amul dara lu lu combat bi lu ci défaite bi mën a yàq de ah. non non non absolument absolument normalement daleen du ko leen ka wax au plus euh, daleen daleen war a motiver waaw waaw. d' accord kon euh, naka reprendre ngeen entraînement écurie Fass wala tolloo. si si reprendre nañu ba démb rek dem image yaa ngi ni sax man bi ñëw ma ñu may wan li naka la ñu doon entraîné yëpp force ak kii yëpp ñu sax si ñoo doon entraîné ensemble ak Serigne Ndiaye. Forza ak Serigne ñoo doon entraînement ensemble boo ma la wanee kii di nga si gis léegi les images euh, euh, le manager moo ko photo envoyé ma ko donc pour te dire que toujours maa ngi en contact ak ñoom ko hmm. ñoom seen combat une semaine deux mois des noonu la ñu gisee physiquement muy Forza muy muy Serigne. ils sont en état ah <laughs> ils sont en état bu baax a baax a baax baax ñu yaakaar si yàlla yàlla may ñu ndam quoi incha baax nag looy looy tàggatoo sunu internet yi euh, tonton. ah waaw di leen siyaare rek di leen baalu ak rek ah, ah, di di ñaan rek ñu ñu ñëw seetaan si ñu am comme combat bu neex ah, ñu nit dem drapeau sur l'état yàlla maire ñu ndamaat ñu leen indil ndam li Ndakaaru rek di waxaat tamit ne ne autorité vraiment ne autorité jàpp si si équipe bi Dakar dafa rëy y a autant de maire doon ma ñun war nañu am avantage. avantage gu neex goo xam ne gi vraiment maire yi il suffit que benn maire bu si nekk benn peu gu muy participer rek bon si affaire ba duñu laaj laaju bu ku nekk participer benn petite somme rek euh, si affaire dafay baax mais vraiment euh, duñu duñuy mel ni sax euh, <laughs> ñoom du seen équipe mooy dem représenter ji leen comparativement si yeneen yeneen yeneen régions yi quoi hmm. mais yàlla baax la ñu ñu ngi leen di souhaiter bonne chance du tonton merci beaucoup merci beaucoup